toujours dans votre actu du jour de ce lundi 30 octobre 2023 suñu jógee foofu dama bëgg ñu seetaani beneen vidéo bi nga xamante ne mi ngi xew foofu ca Louga muy collecte de parrainage ginnaaw bi nga xamante ne sillonné nañu lii nga xamante ne mooy région de Louga kii di Modou Diagne Fada di nouveau ministre bi nga xamante ne na ci gouvernement Amadou Ba bi collecte de parrain yu mu doon def nañu seetaani vidéo bi dellu si waat

kon yakarna naa ni ñoo do ki nga xamanteni moy mooy Modou Diagne Fada ginnaw biñu nekké nekkee foofa ca Louga ci weekend bi ñom pare nañu dajale nañu mbolo bu takku ñëwoon na fa maanaam parrain yi nga xamanteni soxla woon nañ ko pour jébbal ko ki nga xamanteni moy Amadou Ba pour doon candidat aux prochaines élections de février 2024 ki di Modou Diagne Fada xamal ne que daal dajale ñu lu toll ci 55000 cinq cinquante cinq mille parrain dajale nañ ko dinañ ko jébbal kii nga xamante ni mooy Amadou Ba su dee cinquante dajale nañ ko ci Louga rek je crois que li ñu soxloon ci parrainage am nañ mais nañu moytu nag ay doublon ndaxte jamono ji candidat yi bari nañ te ku ci nekk mën nga parrainé waat keneen cinquante cinq mille yooyu mën na doon loo xamante ni aussi dafay niil ndaxte soo amee ay doublon wala am ay am ñoo xamante ni inscrire ñu leen wala seen tour nekkul ci liste électorale la wax muy ko ci foofu nga xamante ne direction générale des élections ba nga xamantene ne nañ la parrain dal jaar na yoon bu si nekk amul ben problème en tout cas ki di Modou Diagne Fada daragal na lu toll sa parrain fofu ca Louga jébbal ko ki nga xamantene moy sen candidat di Amadou Ba. Thank you.